ñun dañoo tënk biir Eiffage Marine te tënk boobu xeetu nasaraan si moo ñu tënk ñu defoon fi benn conférence de presse ba mu mujjee am médiation ñu ne ko délégation Eiffage Marine ak inspection du travail ak euh, bureau

motax tay ñu daan na ni dañuy wacc ci mbedd mi ouvrier Sénégal euh APROSI ak sphère ministérielle ak ki bu bees bi euh université bi ci baangi fofu foofu biñ ko amee légui ça fait plus de 10 ans ñi ngi nekk foofu am ñi gor gor góorgóorlu def sen fondation am ñu sax ñu fa jot a dëkk ñu xey à un beau jour rek ku ñuy wax euh, APROSI directeur APROSI Momad Ba ñëw fa euh, ne moom moom foofu léegi ñu ne ko yan kayit nga am mu wane fa ay xaw may baay la xaw ma yu demee noonu ñu dem gis maire bi maire bi na leen maire bi na ñu mos na fa demandé. waaw waaw ñun amoon nañ ñun am nañu ay ay attestation de de de de kii lañ amoon waaw yoo xam ne maire moo ñu ko joxoon fay nañ suñu ordre de recette kayit yaa ngi nii dossier yaa ngi bu la neexee moon la ko amoon nañ ay ordre de recette y une une attestation de délibération Il y maire qui c'est à partir de ces mm, papiers là Que nous avons pour nous des ay Nous avons opinion nationale kon opinion internationale de leen wax ni Marine nous calvaire calvaire yi Nous avons di contrat de travail 8 heures de temps la heures de temps quatre heures de heure supplémentaire yi nga xam ne mënuñu la ko fay ngay liggéey bëccëg di liggéey guddi ñu ne la li ngay liggéey guddi ak bëccëg ñooy yem te code du travail waxul loolu beneen bi ci des ñun amuñu kàddu parce que dañ ñoo noot boo waxee boo sëkkatee ñu jox la demande d'explication ñu teg ci mise à pied mise à pied boobu jàllee li ciy topp mooy dañ lay licencier te tey ñu ñu licencier dafa bari

day taj marché bi ñun tamit ñu jóg taxaw mais naa xamal sénégalais yi ne marché bi ay cantines yoo xam ne dañ ko tabaxoon jaay ko ñi ngi ko jaay ay expatriés la ñu woon mooy ñoo xam ne dañoo demoon bitim réew di daan seen doole. ngir it ay nit ñoo xam ne amul poste d'affectation chaque fin de mois ñu leen di fay am na ñoo xam ne ba leen affecté seen i poste parce que ay mbokkam lañu demuñu seen i chef de service bind ay ay lettres d'abandon de poste mais lijjantiwuñu ko sax parce que ay mbokkam lañu léegi man mu ñëw def benn discrimination boo xam dafa leer nañ xëy na dën yore ma 5 mois arrière salaire sama indemnité de congé depuis 2015 nangu ma koo fay ko comité sanitaire nangu ko ba pare nangu ma fay sama salaire normal ma jël loolu bind ko jox ko inspection du travail pour réclamation pour carrément ñoom ñu revenir defal ma sama reclassement ak fay ma dañu ma yoreel bi ma jegee loolu ma bind encore une lettre adressée ko gouverneur de la région

keroog ma Sall li mu def jam ñaajo amul benn sérieux parce que Macky Sall bu fekkee jafe-jafe askan bi kese kese moo ko ñor man wóor na ma ne ñuy def nii tey ump ko dafa waroon def comme ni président Ousmane Sonko def taal otoom ñëw taxaw déglu ñu bu paree mu wut ci ay saafara